a awuzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum mbokki murid mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare jiital si nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ñaanal ko saa borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba mbooleem naal yi xamante ni naanal na ko yéene ko liggéeyal maam ju tedd ja sëñ Bamba saa borom ko kattan ak man-man ko defal ko tawféex bu nu mu ko bëggee mu defe ko ni noonu lañ koy ñaanalee itam Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Fall suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba mbooleem digal yi jóge ko sëñ Bamba yëpp mën koo jëfee ni mu ko bëggee di ko digal ñu koy defee ni mu ko bëggee ñu ngi koy ñaanal mbooleem mbooleem murid yi mbooleem jullit yi ak ku leen yéene jàmm ñu ngi leen di dalal mbokk yi si kër jàmbaar fii si Mbacke Bawol buñ ko waxee xel dana dem ci Serigne Abdoulahi Fall Ndar mi nga xamante ni wuutu na fi Cheikh Ibra Fall 1954 ba 1975 tey nag ñu ñëw këram fekk fi ki nga xamante ni mooy xalifaam di Serigne Mortala Fall ak njabootu Serigne Abdoulahi Fall Ndar gi yëpp fas yéene lañ nga xamante ni waxante woon nañ ko yéen muy fépp foo xamante ni njabootu Cheikh Ibra Fall ña nga fa di togg ndogu ñu dem jëlal leen la nga xamante ni moo fa am loolu lañ fas yéene def tey jii fii nga xamante ni mooy kër Serigne Abdoulahi Ndar ci ñii nga xamante ni mooy njabootam ñii nga xamante mooy taalibe yi wal li nga xamante moo fi xew jëlal leen waañ bi séq ak ñoom ay waxtaan waaye gunge leen ba keroog ñuy yóbbu ndog yi fii nga xamante ni mooy janatul maxwa kër sëriñ di Fall mi fi nekkal Cheikh Rafal kon bismillah la ilaha illallah la la ilaha illallah koy murid yi ngeen jëf ñi ngi nii nag ci biir kër sëriñ Abdoulaye Fall Ndar fii nga xamante ni fii la xalifaam Serigne Mortala ne ñi ngi nag ci biir waañ bi janoo ki nga xamante ni mooy soxna Bintu njaay Baye Fall fas yéene seq ak moom waxtaan soxna suñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xam ne ñoo seetaan. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi soxna Bintu Ndiaye Baye Fall mi ngi leen nuyu di leen ziar di jiital nuyoo bi sëñ Mountakha Mbacké di ñaana mu yàgg fi te wér di ñaanal sëñ Amdi Modou Mbène mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ñaanal sëñ Ndar mu yàgg fi ta ànd ak wér ak rakkam sëñ Fallou ak sëñ maam Seex ak sëñ maamun ñoom ñëpp rek ak njaboot gu jigéen gi ak sëñ soxna Mbeen ak yaay Jee ñoom ñëpp ak soxna maam say di ñaan yu yàgg fi ta ànd ak wér te ànd ko ak ñoom soxna Bintu buñ la doon laaj ban liggéey nga yor si kër gi loo nuy wax liggéey bi moom moom li ma yor moom poste yi macha allah maa ngi sant bu wér a wér a ndax sëñ bi doyloo na ma ma doon jarbaatam sëñ Xaadim doy ma ànd ak moom muy jarbaatam mu jox ñu lu baree bari ci kër gi ndax lu ci baree bari bu dem dugg mun war a ndugg ca këram gee ak lu fi xew sama loxo la koy teg bu dee luñ di war a def fii ci kër gi sama loxo la ko teg sëñ Talla moom mënatuma koo fay mënatuma fay ak njabootam ndax doylu guñ ma doyloo ak man mu xew bu mii maa nga see baa ngi nii sëñ xaarim doy sama kilifa mu jël ko tegaat ci sama loxo dara maa ngi ko wut macha allah suba ba ngoon ma xëyee man maay natt diw maay dagg mburu lépp sama loxo la nekk kàr macha allah ko mbokki taalibe ak jullit yi ñoom ñëpp rek waaw. liggéey liggéeyu waañ bi naka lay demee bis bu jot. liggéey waañ bi ni muy demee bis bu set saa bu ñu xëyee ñun fajar lañ fiy ñëw 6 heures de matin fi la ñuy fekk bu ñu xëyee bu sañ xaadim génnee pomme terre bi ak soble yi joxe ko ma génne meneen ndugg mi ci des si magasin bi li nga xam ne jigéen a ko war a joxe soble yeeg diw yeeg kii pomme eh, kii diwlin yi ak eh, masi bi kaani geeg yëpp yi nga xam ne jigéen di ko war a joxe mu jox ma caabi ma génn yëpp joxe jigéen ñi vinaigre yeeg yëpp ndugg bi maa koy joxe su ma ko joxe bu heure jot taal jotee ma dem leen heure taal jot na jël sama diwlin nat jox leen ñu saaf pomme terre yi togg ndogu yi kon pare sëñ xaalim ne yekk la ñu yekk dem jébbal la sëñ taal ca ma ban waxtu la ñuy xëy si ñun kay moom euh, six heures de matin fii la ñuy fekk ci kàttanu yàlla waaw léegi cin nii nan la demee cin yi juróom benn cin la ba am di maam say jëwrin sama nijaay am na ñaari cin mooy waa daaru man naan yaa dafa sall am na cin yaa aram géey am na cin yaa mbeen am na cin sëñ Fallou baay am na ci rakk sëñ Taala nangu ndigal maanaam soxna yi fi nekk gis nañu am nañu passif lool seen liggéey nu muy demee. macha allah macha allah laf cat ñoom ñëpp am passif ñun bu ñu xëyee fële Touba ñibbisi sama impaañ ñoom fi lañ leen di fekk ci kër gi fi lañ leen fekk bu ñu leen fekkee fekk lañ leen ñu commencé xool ñun tam bu ñu ñëwee ànd ak ñoom kenn ku ne jël sa bagage ñu tegale sa fa nga war a teg sa pomme de terre sa soble nga xooli defar bu musal jotee nga teg waaw. bu nit kumteet moom six heures dama tey fii la ñu fekk bu ñëwee lu teel teel fekk nañ fi yaa dafa sàll yaa aram gi ak waa yaa mbeen ak waa Kër Sëñ Fallou ñu ànd ak ñoom liggéey bi kumteet gu mën di doon fajar la ñuy ñëw bu dul kumteet fajar la ñuy ñëw ndax bëgguñu dara tardé ni sëñ bi bëgg rek la ñuy def seel set silvisé <laughs> soxna Bintu boo amoon looy looy looy soññu sa mbokk soxna yi seetaan doo di Baye Fall. xanaa eh, mbokki Baye Fall di seeyaare ñëpp rek di ñaanal ñëpp jàmm tey sàkk ci eh, te yàlla dool ñu jàmm ñu gën a am tawféex ak taysiir xéwal gu yaatu gu barkeel ba yéen ñëpp ngeen xaj ci barke Sibra ñi maa la leen di soññ bu baax a baax laxasaay gu ñu gën koo dolli gën koo fedd ndax ñun amuñu lu may suñuy sëriñ amuñu lu may Seex Mortala Seex Mortala amul lu may sëñ Amdi sëñ Amdi amul lu may sëñ Muntaxa sant ak wér tey ñaan rek ca kaw ca kanam ñu gën a laxasaayu gën a dolli ndax ñun bu liggéey bi ñëwatee demuñu ci yet demuñu génte Seex Rafaal seere na ko li ñuy tax a génn mooy maara day taali ku wàññiku te bala ñoo dem dañoo togg ndog yi ba jébbal ko doo ko dem jaale barke Seydou Ba xet ge duñu xeeñ nuñ ko mos xet gi duñu xeeñ loolu Seex Ibra la mbóot la mbóot la Seex Ibra Fall Ndar nag moom ko ànd ak moom doo ragal bul tiit bul jàq ndax nee la moom duma ànd ko ragal te man duma lobb damay taxantaal dara maa ngi maa ngi sëy baa ngi ni nag yaa ngi ne matt maa ngi barke Seex Ibra Fall sëñ moo taal Fall ca kaw ca kanam lañ koy ñaaral mu yàgg gudd fan wér yan ba bépp Baay Fall nag siyaare waa Kassim Mourame te bu baax nañ bëgg sëñ Baye Fall Ndar siyaare Baye Fall yëpp yéen di leen a jàmm di sàkku ci yéen ñaan te yàlla bàyyi leen fi te ànd siyaare njaboot sëñ Baye Fall Ndar gépp nag góor ak jigéen bàyyi ma kenn ku lim da ngay juum waaw lu ci juum nag maa koy jéggul la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah waaw kay mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi toog ak Serigne Khadim Ndoye di jëwriñ ñi liggéey bi fii nii ci kër sëriñ Mor la moom sëñ Ablaye sëñ Xaadim xanaa ah, da ñuy dimbali ginnaaw boo nuyoo ba noppi liggéeyu kër gi ak ndog yi nga ah, ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax te di leen jox seen wàccuwaay di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm di sant bu baax jëmm ji nga xamante nii mooy jëwriñ liggéey bi di Cheikh Moustapha Fall moom sëriñ moo Aminta ñu gën ko xam sëriñ Moustapha Mbar ñu ngi koy siyaar bu baax ak jëwriñam sëriñ Fallou ak waa ka sëriñ Modou Aminta Fall yëpp. di leen siyaar bu baax yéen ñi nga xamante ni yéen a jël si liggéey bii nii di liggéeyub sëñ Ablaye Fall Ndar ndax mel ne tey jii na ma ko ma daan waxee rek wattu daa dellu ca ndaala ndax ku jóge kër sëñ moo demee te ñëw kër sëñ Ablaye Fall Ndar loolu day doon loo xam ne histoire bu yaatu la xam naa ne mag ñi dinañ ci ñëw wante nag suñ ne mbattu si delluwaat na ca ndaala waa kër sëñ moo demee te ñëw nañ kër sëñ Ablaye Ndar di am lu ñu fi jël si ñëw nañ fuñ miin kon ñu ngi ñaanal jëmm yooyu nga xamante ni ñoo fi teewal Cheikh mu du fallu mi nga xam ne jàmbaari Serigne Abdoulaye Fall Ndar la woon ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem njaboot gi mu fi bàyyi nga xam ne si sëñ Fallou ak sëñ Moussa ak ña ànd ak ñoom ñëpp ba ci taalibe ya ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay wi leen sëñ Abdoulaye jox ci kër gi ñu ngi leen di ziar baax di leen ñaanal jàmm di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm kon xam naa ne loolu nga bëgg muy wàllu liggéey bi liggéey bi moom day doon loo xamante ni maanaa ndigalul Serigne Touba la loo xam ne dafa ñëw jëkk atub Cheikh ra fii ngeen ko jëlsee sëñ laay def ci loo xamante nii néew na góor def ko ci ngir temps bam ci def ndax la maam Roqee Mbay daan wax maanaa dee leen ñaan yàgg fi ndax yàgg fi ngànnaay la loo xam ne man nga cee tooñ man nga cee fayu kon yàgg googu noonu sëñ Ablaye da ko cee def ànd ko jëmm jooju di Seex Moodu Fallu Fall sun borom yàlla na yokk seeni leer yàgg googu noonu nag ba tax na ka nga xam ne mooy Seex Mortala jëloon magam jooju def ko muy baayam di kilifaam di sëriñ Mourad Abdoulaye yal na yàlla yokk ay leeram lu mu mas a def ànd ko ak moom ba tey ji yan bi egs ci kawam yan boobu bi mu egsee ci kawam nag muy sëñ Abdoulaye Fall Ndar maanaa jëlul bindu fenn bindu ba mu yoroon moom la tariwaat rek na ko sëñ Mourad Abdoulaye daan defee wàññiwu ko da ko yokk ndax mbir boo ko àndeek nit ñaar fukki at ak nangam ànd kook moom muy sa mag loo am jox ko loo xam wax ko fu nekk nga fekk ko fa. kon jëmm jooju noonu bul yëf yooyu ndajaloo yëpp ñëwaat ci sa kaw di nga xam ni nga koy téye ni koy téye nag mooy tàmbale ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi ndax nam ko daan waxee rek aka neexoon ñu jël doole ji delloo ko borom. kan mooy borom doole ji mooy maam Cheikh Ibrahima Fall. bi fi sëriñ bi jógee dafa jël jëmmam jox ko sëriñ Cheikh Jëmb Fall yal na yàlla yokk ay leeram ànd ko ak moom ci àndin wu rafet def ko muy léppam bi fi sëñ Amdi Fall moom sëriñ mu wëlbati ko ànd ak moom ci àndin wii nga xamante nii dana lépp lu ma daan def benn dama ko fas yéenee def muy fukk te foofu la fa ko fas yéenee li jëmale liggéey bi nag dafay loo xamante nii sëriñ bi da day sunu lépp jël ñu teg ñu ci kër gi jël wàllu ndog yi ak li nga xam ne moo féetewoo ci ndogu yi ak li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci kër gi lépp teg ko suñ loxo teg googu noonu nag na ko maam Roqaye Mbaye wax daan waxee rek xaadim mooy taawu sët ci kër gi kon looloo tax sëriñ bi jël jëmm yooyu noonu ak liggéey boobu teg ko suñ loxo liggéey boobu noonu nag ñun dañoo gënal suñu lépp ndax luñ am ci lañ ko amee ñun dañoo juddu xamuñ kenn kuddu dul sëñ taala amuñ lenn loo xamante ne nii ak lu man doon fu ñu ko mën a amee ci sëñ taala la sëñ taala moo ñu yar moo ñu yor moo ñu defal lépp ba tey jii moo ñu defal lépp kon lu mu jël teg suñ loxo suñ bakkan lañ ciy gar ñu xamul nag dañuy jàpp ne xaadim lii lay demee wala nangam ak nangam fekk nag dafay am loo xam ne dafa fees sama jëm man sëñ taalaa sama jëm ndax moom laa xam bi ma ko xamee tamit mu doon loo xam ne moom ma yar moo def ci man lépp ginnaaw loolu nag liggéey bii dafa doon loo xamante ne nii maanaa sëñ bi ni mu ko bëggee rek noonu lañ koy defee fu sëñ bi bëgg a àggal tamit nañ ko ànd ak ñoom bu dee jëmm lay laaj jëmm lañ koy jox bu dee bakkan lay laaj suñ bakkan noppi na lu am tamit dinañ ko ci def moo waral amuñ ci sago buñ xëyee danañ ko ànd ak sëriñ bi néeguñ ko sëñ bi digale nañ xam ne tamit lépp lu sëñ taal def moo ko defal boppam kenn defalu ko dara ndax nañ koor gu njëkk ga dafa jënd fukki bool teg jënd ay morso ñu ñaw ko bleu noir nga xam ne xorom sax du jóge daawut jóge kër sëñ Cheikh jëmb sëñ bi nekk ci loolu ba mu jotaatee ndigal ñu jox ñu ay bool lu dul ay bool jógewul kër sëñ Cheikh Jëmb ba fi sëñ am di jóge nekkee tamit lu dul ay bool jógewul foofa ñëw fii lum ci man di doon ba mu doonee fukki bool sëñ bee ko daan toggal boppam xorom daawut jóge fenn di ñëw lum ci man di doon magasin bi la duy ba mu fees su ma xëyee joxe nañ ko waa war a joxe bu dee pompiteer ci lu nekk dana la jox fukki kilo ak juróom soble fukki kilo ak juróom bu dee ay ginaar la ñu jox la fukki ginaar bañ ko dee def fukki fukki bool bañ xoolee ginaar rek téeméeri ginaar la woon ñu doole sëñ bi dem ba yàgg moo nañ ci doolewaat ñaar muy téeméeri ginaar ak ñaar fukk doon téeméeri mburu ak ñaar fukk pombiteer bi tamit nañ ko daan defee noonu lañ ko defee rek ci lu nekk dina la jox 15 kilos soble 15 kilos ak yam war a àndal muy jëmmi magasin ba lay jëm ca wàllu jigéen yi ya nga xam ne lañ ko tuddee ay sasafal soxna Bintu Jaay moo yor loolu xam naa dina ci jàll ak yéen kon nañ xam loolu xam ne sëñ Talla mooy defal boppam ay bool lañ koy indil ak morso mu def ca lam togg xormus kenn demu ca ku xoromus xormus sëñ taala kon sëñ taala ay ay ay ndogam noonu la demee ñu ci bëri nag dañuy réere ne la ñuy togg day jóge kër xalifa ba la fay jóge mooy ndigal li mooy ñëw bu ndigal li ñëwee sëñ bi mooy jël lam ca am def ko ca loolu moom ndog yi noonu ñi lay demee ca sëñ Cheikh jëmb ba léegi nag kon ñu ngi ñaanal Cheikh Mortala yan bii mu yenu yël na gën a oyof te mu yàgg fi lool def ko at yee sëñ Ablaye Fall Ndar toogoon ci xalifa ak Cheikh Ibrahima Fall mu toog ko ci xalaaf ak sëñ Ablaye Fall Ndar gii nii ba toog yëfi boppam ñu ngi ko koy ñaanal ci doole Cheikh Rafal di ko ñaanal képp koo xamante ni sëtub Cheikh Ibrahima Fall nga nekk ci bopp kër ak koo mën a doon di ab sët di doom ak koo mën a doon rek suñ borom dëbb la kattan ba ndigal lu jóge kër sëñ Touba loola mu nga def ci jëf joo xamante nii maanaam góor musu koo def ndax kat damay dégg sëriñ bi mu wax ne sëñ Abdoulaye la mu waxoon lenn rek la. am na yu xewoon ñu laaj yi ndigal bañ ñëwee sëñ Ablaye daf na sëñ Ablaye lii sunu mbañ mooy war a digle te wuñ lii seen mbañ yéen ngeen dégg ndigal te jëfewu leen loolu nag yàlla na sax te yàgg ci doole Cheikh Ablaye. jërëjëf sëñ sëñ Xaadim xam naa ne pour tudd nga li nga xamante mooy mooy mooy ndog yi. Mm-hmm. waaye am na leneen tamit loo xamante ni ànd na ak moom. Mm-hmm. ndax gis nañu bu ngeen toggee ndogee ba noppi. leen mm-hmm. koy yàpp si oto. te oto yi dañuy lakk gasoil lépp te day dem ba janatu bis bu jot. waa loolu loolu programme la boo xamante nii sëriñ bi da koo jël jox ko Baye Cheikh Fall nga xam ne mooy moom ñoom ñoo tudd gasoil bi mbooloo mi nuñ toll sëriñ bi bu ñaanee ba noppi day am yëg-yëgu képp koo xam ne bëgg ngaa dem oto yi ñu jël sax bu demee ba oto yooyu fees dañuy taxaw ci télé bi ndax fii soriwut ak télé bi sëriñ bi ne doolu leen oto yi ba ñëpp mën a dem ndax yëg na ci mbooloo mi ñu dem ba kër sëñ nga ga wàcc fa yanu àndandoo dem yóbbu ko wàññi ko waat ñëwaat fekk fii sëñ bi kon loolu day doon loo xamante nii maanaam day nuru lu métti wante dafay jëmm yoo xamante nii maanaam sëñ bi dañ ko koo tàggatal dañ koo tàggatal ndax la ko sëñ mun Muntaxa waxoon rek sa mbaax gi ak sa oyof gi àttan na lu ne loolu moo may doole sëñ Taala sëñ Muntaxa mi mi fi sëñ moo ko wax ne ko sa mbaax gi ak sa oyof ak sa taalibe gi àttan na lu ne kon bu ko doon toggee jaw bi tamit bu heure ba jotee bu ko sëñ bi soxlaa dina dina dana ko fa mën a yóbbu dina am moyen bu mu ko fa yóbboo kon ñun ñu koy ànd ak ñoom ak ku koy jël si ak kuy dégg wax ji yàlla nay sa fajo aajo sëñ bi daal dara méttiwut ci moom. dëgg la dégg nañ tamit euh, sikkar si boobu ak léegi. Mhm. waaye gis nañ fi tamit jàng alxuraan. waa moom xam nga ñu koy jàng ak njabootam lañ koo fa gis mu yor jukki rek Fall la sant mhm. ndax sëñ Modou Fall ab taawam moo koy jiite bu ñu xëyee kaamil bi moom du fi jóg. bu dee koor gi kaamil baa ngi ci kër gi bu dul koor gi kaamil baa ngi ci kër gi heure bu toogee sëñ Modou dina xam heure bi mu koy tàmbali bala ñoo wàcce indi ndogu yi mu tege ci kii bi danañ xat mu kaamil bi takkaat kaamil bi delloo ci néegu sëñ bi loolu ña nga fa gis ñëpp bu sëñ Taala moo koy jiite ak njaboot gi nga xamante ni njabootu sëñ Ablaye Fall Ndar lañ muy ay jarbaat nga xamante ni jarbaati sëñ bi lañ ak doomi sëñ bi ak doomi rakki sëñ bi ñooñu ñoo fa daje di wàcce kaamil boobu bis bu set la nag duñ ko jëlal bis bu set dinañ ko wàccee jàng fii xasaayit ak ñi nga xam ne ñooy tudd yàlla nii lañ koy defee ba ndogu yi ñëw ci kanamu sëriñ bi sëñ Fallou baay def waxtaan wi ñu jot lil ko ko mu ne bisimilah murit na jóg murit yi yëkkati ndogu yi dugal ko ci oto yi. àndandoo tamit daan nañu ñu jiitu ca kanam ko koo la mm. loolu nag ñu ngi lancé ay message yu bëree bëri ci góor yàlla yi ñuy dajal mm-hmm. dafay loo xamante nii maanaa ci sëriñ bi la jëm jëm ci sëriñ bi. ci sëriñ bi la jógee jëm ci sëriñ bi ña ko jiitu nag nañ ko doon def xëy nekk ci 4 heures du matin dina leen fekk ñu koy saytu ba dara mejju ci du mejje ci télé bi wala suñ bakkan mejj. ñaar yi rek mooy mën a nekk ñu may ñu ñu yóbbu ko ci teeyi bakkan wala képp koo xamante ni am nga pas-pasu yàq ko maa danañ la yàq te du tee ñu yóbbu ko noonu yi la demee kon nag nañ ñuy dimbali ba yàq googu noonu ba mu am ci ñoom ba mu am ci ñoom nañ ndax diggante bi lu oto bi oto biy daw bu dee def laa fekk ngay daw war ngaa mën a sa tegg sa tànk mu romb la dem yóbbu ko oto bi taxaw war ngaa mën a droite ñu yóbbu ko ndax loo xam ne am matoo jiite te aw xel lay dox oto yi ca topp di dawe xel nga geesu gis lu mu gàtt gàtt fukki oto nangam war ngaa xalaat na ñii kat fañ jëm fenn la te man kat fa ma jëm amaana moom jëmmi boppam heure bu ma fa àggee baax na te ñii dañoo am heure bu ñu leen di xaar. kon nañ ñuy may tali ngir jëmmi Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne moom ndogu yi ñu yóbbu ko ndànk àgg ku ko deful lool nag danañ jëflante yow ci jëflante woo xamante nii maanaam amul luñ ciy xalaat amul luñ ciy seet ndax ndigalu sëñ moom suñ bakkan lañ ci jël teg ko ci fi yëg sëñ bi demut ba ndogo yi jeex na heure bu ñu xëyee dinañ takk suñ digg nekk ci bu noppee tamit dinañ jiitu fas yéene képp koo xamante ni nar ngaa xajamal li ñuy def danga nga xajam moom. waaw kay mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi toog ak euh, sëriñ Baba Ndiaye fas yéene waxtaan ak moom ci jëmm ji nga xamante ni moom lañ ci fekk si waaye borom kër gi di sëriñ Abdoulaye Fall Ndar ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ Baba di la siyaare. waaw noonu leen di fay di leen siyaare ci barke borom kër gi ngeen xam ne moo tax ngeen ñëw fi muy seexal Ablaay Fall Ndar di wëlbati ko di wàcc ko kër sëñ Modou Aminta Fall ndax kër sëñ Modou Aminta Fall kër sëñ Ablaay Fall Ndar benn la ndax man damaa dikk fekk leen ñu bennoo sëñ Ablaay Fall Ndar lépp sëñ jiital sëñ Modou Aminta ci léppam muy lu ma leer nag nga xam du ma ci ne lii dégg naa ko wala yaakaar naa ne ki yow ma man lu ma ciy wax rek dama naa la ci sama kanam wala yooyu. ba tax na sant nan leen cant goo xamee ndax lii mooy yaatal. te yaatal dafa am solo la la jërte yaatal mooy li nga xamee ne naka su dul noonu la waaye lii ngeen def lu am solo la ndax yoon wi lii rek la baaxoo di yaatal lu baax soo ko yaatalee fi mu ne nii ñu def rek mën na noo dem a dem ba. koo xamee ne juddoogul sax man na noo dem a dem ba mu judd ci gis ci lii yàlla xeer ko ci yoon sëñ Tuubaa ak Seex Ibra kon am na solo di walbatiku nag di sant bu baax borom kër gi Seex Mor Talla mi fi Seex Ablaay Fàndar fas yéene nag di wéy ci ndigalam rek ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa ak Seex Ibra Faal di walbatiku dem kër sëñ Mourami di sant bu baax Amadal Faal ma fa ne comme la ma ko xam nag ne ko sëñ Mourami Tafal day mu ne Faal ma ne ko jëmm ji rek nu réer waaye jëf jéeg ju ko ji lépp a ngi fi walbati ko di wàcc ko ci sëñ Moussa Mbar mi nga xam ne moom tamit wenn toogaay rek la mel jukkoy ciment la yor benn yoon rek lay tooy dégg di leen ñaanal yàlla def leen fanu gudd ak wér ndax man xam naa ku ma ciy mere dégg ma ci mere lool man mënu maa fexe ba ko sëñ Modou Aminta mënu ma leen a bañ <laughs> ndax dama ci am lu ma ci gis sëñ Modou Aminta nekk na ak sëñ Ablaye Fall Ndar ba jóge fi bu sëñ Modou Aminta masaa ñëw njaareem fekk sëñ man de li ma gis boo boo ko weddee laaj ko daam faal moo daan jël si añ bi wala reer bi saa añ bi noppee reer bi sëñ Ablaye jóge ci ñu dikk ci pilaan bi ne ko añ bi noppi na wala reer bi noppi na mu jóg dugg ca biir dem ca daqaar ga mun njaay ju mën a xam kana boolu muur aminta mu ñëw sëñ Ablaye tibb boolu sëñ muur aminta ci boppam laa loxo boppam teg la ca war a tege jóg taxaw ne mun njaay jum sedd leen nga xam ne bàyyi mun njaay jum moo koy tibbal boolu boppam waaye moom boolub sëñ Modou Aminta sëñ Ablaye Fall Ndar ba ni mu fi jógee boo ko weddee lii ma la wax laaj daam faala nga fa daam faal ma ndaw nanga ko laaj gis naa ko ba man dama ko gis dégguma ko dama cee teg sama bët nga xam ne boolub sëñ Modou Aminta sëñ Ablaye koy tibb teg ca lañ ca war a teg jóg ne mun njaay jum de seddale leen baay mun njaay jum daal di jël boolu boppam moom sëñ Ablaye doog koo tibbal loolu dama cee teg sama bët waaw bëgg nañ tamit nga dimbali ñu si jëmm jooju ki nga xam day seetaan bëgg koo xam sëriñ Abdoulaye Fall Ndar waaw sëñ Ablaye de moom nañ koy xamee moom xam naa day kii ndax may itam bu ma ci soree day metti ci man damay egg foo xamee ne day kii waaye li ma fi may dellu si tamit foofu bala maa sori bërki démb danoo ndax lu la xamee nay lu baax lu la xamee nay lu baax di taalibe bërki démb danoo daj tey dama leen koy dénkaale nag ndax mooy gënal sëñ fal mooy gënal sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Moustapha ndax ñoom bàyyi lañ def sëñ taal te mooy seen bàyyi su ngeen séenatee ndogo yi sëñ Talla di dem. yéen oto bii déparé ko sëñ ma dem bu leen leen jiitu. yaa ngi may dégg nga ma mbaa. waaw kay. ndax dafa yàgg. moo gënal sëñ Fall moo gënal sëñ Moussa moo gënal sëñ Modou Aminta ma ci àjjana. dëgg la ndog yi sëñ Talla jiitu ngeen topp ci. parce que dem dama da ngeen dem bay doublé xaarim dóor kii bi ne taxaw leen. fi ma toog ci oto bi ma toog ñun ñett ñi fi ñi ci ne. Mhm. maanaam ah, waaw xaarim def na loo xamee ne xamu ko sax. Mhm. ndax xam naa ne nee day mooy gënal sëñ Moustapha mooy sëñ Fallou sekk na ci tonne maa ah, waa lool de moom ca mm-hmm. sëñ Ablaye la billaahi wallaahi Moussa Faye mii dawal ne ma wax ngeen dëgg de kon loolu day mbir moo xamee ne jërta sàggane su ngeen gisatee ndog yi sëñ taal yi dem rek topp leen ci ñoom oto bu ngeen dugg mu bëgg du nekk waaye bu leen dublekee mm-hmm. ndax mooy gënal sañ fallu mooy gënal sëñ Moustapha kon nag noo ngi ñaan yàlla yàggal leen wéral leen def leen mucc ak mucc le yéen ñi nga xamante ni yéen a fi di nga xamee yéenay tànk sëñ bi ak loxoy sëñ bi mm-hmm. noo ngi ñaan ngeen mucc te wér ndax lii am nañ am na solo trop. gis nañ tamit sëñ Baba Ndiaye. bu ndog yu jugee. day ne ci kanam di kar waaw loolu it mënuñu koo ñàkk bañ a def. Mm-hmm. daam na lu bari luñ ciy def. loo xamee ne am nañu ko xam am nañu ko xamul. Mm-hmm. man oto bi bu ma ci duggee sax ñu jëm tuubaa boo xoolee oto bi ndog yi ne ci laay ci ndab yi ne ci laay yéeg génne sama kuur ca kanam la ma cay jublu pour bañ ku réer waaw ndax kuur gi day gindee boo séenee boo séenee ndogo yi ma séen nga séen kuur ca kanam da nga ne ah léegi waa Kër Seera Faa boo def safoor boo boo dee mag ku man di doon te sëñ Tuubaa ni ceew ak Seex Faal di nga na jox cër bi ñu jàll waaw ñi li ci des ñi nga xam ne ñëwagunu ak gan ñi ñu xam ne lii moom lañ am tey moom lañu am ëllëg nañ ko fonk muy ndigal li man de ba ma xàmmalikook léegi benn bis bu weeru koor ñëw ma man ko ca jamono ki ba ma xàmmalikook ba man kook léegi benn bis bu nu at mu ñëw ñu togg ndogu ba ndog yi jeex may tardé dara àdduna jarul ma ko du mu yaa jóom nii la daan def mbubbam ak sama mbubb fas takk montagne kër gu mag ma xam naa xamu leen ko beeñ boo xamee maar day taal day cëkk montagne la te ngay yëkkati si kat di monté jàll jamonoy sëñ Basiiru ñu togg ci sëñ Ablaay Fall booba buñ masaayanu ñu ngi bàyyi sëñ Ablaay ci pilaan bi wuti sëñ Basiiru buñ demee ba tàcc kanam sëñ Basiiru sëñ Basiiru day génn ci kaw ci pilaan ci ca fenêtre ba tiim dab yi waaw kon loolu mu ngi bëgg ami fan du mu yaay Jóob da daan fa mbubbam fas ci sama mbubb ndax booba gone laa waaye booba li may si kër maar day taal booba booba Mm. loolu jiili faal rek te Cheikh Ablaye Ndar moo nu ko xam dañoo day leen liggéey di tudd yàlla waaye tudd yàlla gi nag réccuuma ko kon nag noo ngi ñaan ci doole Cheikh Ablaye Fall bisimilah noo ngi ñaan ci doole Cheikh Ablaye Fall Ndar kër gi ñu ngeen fekk di ko fi def ki fi nekk si Cheikh Abdoulaye Fall Ndar yal na ko yàlla yàggal wérul ko musal ko yokk mbooloo mi yokk njaboot gi di ko ñaan nag ci kër gépp kër nag rek laa koy ñaan man gépp kër la péeti mun da ñàkk waaye gépp kër laay ñaan ci waa kër Cheikh Fall kër sëñ Touba kër àlla ji man bàyyi laay bàyyi ñas bu kunta Ndiassane ñaseen kenn ku ne la fa ne yal na ko yàlla dolli di ñaan kër gu ne kilifa fa kilifa ya fa jiitoog seen i taalibi yal na ni yàlla gàttandoog àjjana firdawsi man daal man Baba Ndiaye foofu laay mën a yem yal na nu yàlla dolli jàmm yal na nu yàlla sàmm wéral nu defar suñ cër yi ban mën a liggéeyal Sëriñ Tuubaa suñ kilifa yi nii yàlla yal leen yàlla yàgg jiital ci nuyoo bi soxna muslimatu mbàkke bintu cheikh Mouhamadou Lamine Baara moom sëñ Fallou mu ngi ànd ak ñun liggéey bi ku xam kër gi nag miin ko ci kër gi kon ñu ngi lay ñaanal mbàkke suñ boroom yokk la te wéral la ndax yaa ngi fedd li ànd bu yàgg kon ñu ngi lay ñaanal ci barkeb sëñ Fallou suñ borom defal la tawféex akuk wér barkeb Cheikh Abdoulaye Fall Ndar sëriñ baa ngi nuyu ñi mbokkal sëriñ Abdoulaye Fall Ndar ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi mu ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn di nuyu njaboot gi yëpp ak taalibe yi góor ak jigéen mag ak ndaw kon xanaa ñu maase teewlu rek ni ko sëriñ bi waxee rek muy kàddug sëriñ bi nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax te xam ne liggéey bi mu ngi doo ko xaaj ñu ngi xalaat fanweeri fan mooy weer wi ñu ngi doog a am fukk ak juróom kon tey jii dañoo gën a war a fet liwaat suñ laxasaay te xam ne li ci suñ kanam des na te bëggug sëriñ bi tamit li ci des ñun ñoo koy àggale kenn du ko àggale te bëggug sëriñ bi mooy muy sell di teew di dem ci sëriñ bi di àgg ak jàmm ñu ñëwaat ci kanamu sëriñ bi te loolu mu ngi suñ kanam ñu ngi ñaan ki am kàttan muy sëriñ bi yàlla na nu kàttanal bañ defal ko ni mu ko bëggee ci doolay Cheikh Ablaye Fall Ndar ñu ngi ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba lii mu naal mébét ko di ko defal Cheikh Abdoulaye Fall Ndar suñu borom may ko ci ndam yu yaatoo yaatu te yàggal ko fi lool suñ kanam ci doolay Cheikh Abdoulaye Fall Ndar jërë ngeen jëf kon sëñ Ilimane sëriñ Fallu nee na jàmbaar nga ndax turu yàlla wii aw na yoon lool ndax sëriñ bi nee na kereeg ba lay jëli Cees moom ak sëriñ Mortala mii ñoo àndoon bañ àggee waajuru sëriñ Ilimaan mii ne sëriñ bi na yóbbaale Ilimaan boobee ba léegi jógut ci ndigal li da koy yokk wante du ko wàññi ndax tur yàlla dafa nekk loo xam ne dafa am solo ndax alxuraan dafa wax ne walla wala sikkurullaahil akbar wala yaxlamu maa taslauna kon sikar dafa nekk lu am solo muy alali maam Cheikh Ibrahima Fall ndax wax na ne wax nañ ne kenn ku nekk li tax ñu bind la mooy sàbbaal suñ boroom di tudd màggam gi ak darajaam ji te loolu mënoo ko amee ci lenn lu dul tudd baatam bi di laa ilaha illallah kon buñ ko booleeg ndigal li nañ xam ne li nu war a nekk noo ngi ci nañu gën a góorgóorlu rek te xam ne ñaw ka lu mu ñaw ñaw ñaw daay daggi wàññiwu dara day gën a yokk rek ndax nit ku baax koo gis muy yóbbu fi barab lu baax lu baax la tëfa dafa fekk ku baax kookee téye ko ndax maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu fi jógeek léegi yàgg na waaye ñi mu fi bàyyi te ñu baax moo tax ñu yor lim yoroon di ko def nam ko daan defee loolee mooy lu baax fu mu dem dafa fekk ku baax moo tax du fa jóg kër maam Cheikh Ibrahima Fall nag dafa liggéeyal sëriñ Touba ba am ngërëmam moo tax waxtu wu ne mbiram day gën a jëm kaw ndax moom kat alalam ji mu yor mayuñu ko saraxuñ ko ko da koo jënd lu waay jënd yaa ko moom kon nag ñu ngi siyaare soxna yi fi teew yéeg di ci jiital soxna muslimatu mbàkke moom alaaji baara ñu xam ne ne di xam le ni ku baax la ndax kër gii de ñëw na fi ay yoon kenn ku nekk dégg na ni way juram bu sëriñ bi masaan toog ci penc mi. seesub alaaji baara nañ ko indi. sëñ sëñ Ablaye da daan wax seesub alaaji baara nañ ko indi. ndax léegi mu fekk ma fii. ne suuti mu fekk ko fi. kon nag. li muy wax yàgg na. li muy def yàgg na. li muy dox yàgg na. te lépp rafet na. kon. na ñaanal murid yi rek ñu gën koo man sama borom wéral leen aar leen ba ni ko sëriñ bi bëggee mu mën a àgge noonu ndax maamam rek la liggéeyal sëriñ bi tam ñu ngi koy ñaanal sun borom gën koo wéral gën koo yàggal gën a barkeel njabootam ndax ñun dey seen mag la seenub sëriñ la ñoo ànd lépp kon ndamam rek mooy su ndam kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati sëriñ baa ngi sant waa Daaru Bayre TV ñoom ñoo fi ñëw di waa kër sëriñ Moustapha Mbar ndax sëriñ Moustapha wax na ne turu sëriñ Abdoulaye Fall Ndar da koo neex ci kër sëriñ Modou Aminta sëriñ bi fàllu ne ko loolu yàgg na ndax li ko waral sëriñ Modou Fallilou Fall sëriñ Ablaye la fonkoon dif ko kilifaam jox ko léppam daan ko déglu kon turu sëriñ Ablaye Fall ndar bu jibee kër sëriñ Modou Aminta war na bu fa neexee tamit war na faa neex noonu nii la mbir mi demee kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf na ñepp tàllal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 ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha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

jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax ak gërëm si topp gi nga xamante ni topp ngeen ñu ko subaak léegi ànd nañu ak yéen dem fi nga xamante ni mooy Mbacke Bawal dem si kër Serigne Abdoulahi Fall Ndar fekk fa ki nga xamante ni mooy xalifaam Serigne Mortala ak njabootu sëñ Ablaye Fall Ndar gi yëpp ak mboolem taalibe yi si wàccaayu ndog yi nga xamante ni ñu ngi koy waajalee foofu noonu ci Mbàkke di ko indi fii nga xamante ni mooy jantul maxwaa kër xalif général des Baye am sëriñ moo du Menda wan nañ leen li nga xamante ni mooy liggéey bi séq ak waxtaan ak ñenn si jëwriñ yi waaye ñi nga xamante ni ñooy jiite waañ bi waaye wax leen wan leen tamit li nga xamante ni mooy sikkar sa fa am ak waxtaanu sëriñ beeg lépp ànd ak convoi ba ak si fii nga xamante ni fi lañ indi seen i ndogu lii lañ leen indiloon tey ak waa kër sëriñ Ablaye Fall Ndar ni lañ ko fas yéene àndaat ak yéen saa su nekk fépp foo xamante ni njabootu Cheikh Ibra gi ña nga fa di togg ndogg ñu dem wan leen la nga xamante ni moo fa xew jaa ngeen jëf